waaw di nuyuwaat internetu Dakar Buzz yëpp tey nag ñi ngi fi nga xamante ne mooy euh, Sicap Foire buntu kër euh, soxna Aïda Diallo Thioune bu Serigne Béthio Thioune nga xamante ne kër gi sax la ñuy woowee Daaru Salaama ah, mu woote fi ay cant yu mag tey ci jour 14 février di jour Saint-Valentin ma ciy souhaité rek euh, ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi bëggante ah joyeux Saint-Valentin dañuy ñëw rek xool taalibe yi nan la ñuy see soxna Aïda Diallo xool tamit cant yi nan lay demee ay ca Maalik dem topp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 زاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألا يضر أن منك يا الله مليك يميني وقل بزار يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله ba tey ah, ñi ngi fii nga xamante ne mooy Sicap Foire ci cantu ah, soxna Aïda Diallo bu Cheikh Béthio Thiouna ah. ñu taxaw ak jëwriñ universel Pape Sène dañ koy bàyyi rek moom lañ dénk tamit lépp li nga xamante ne moo dem ci berne bi dañ koy bàyyi mu nuyoog internetu Dakar Buzz nuyu nañ la. waaw ñoo ngi lay fay soxna si sant bu baax sëriñ bi di ñaanal soxna Aïda Saliou yàgg fi lool tànd ak wér waaw waaw di ko ndokkale ci bësam bii. di 14 février bii bés bii nga ne mooy bésu boppam bi nga xam ne waaw daanaka waaw day bës boo xam ne da fonk lool waaw woote fii si Cap Foire waaw ñu jëfe ko nii ñu ko jëfe waaw mu dimbalee ñu ba daanaka kenn fekk ko si jëf ji lii lépp jëfam la waaw xeetu collation ji nga gis nii waaw ñu nekk fii ñu nekk ànd kook ñoom jëwriñ góor gi Sow waaw mu soxna Adja Saliou waaw kër Soxna Batoor ñoom ñëpp a ngi fi waaw ba tax na ñu ngi santaat bu baax sëriñ bi waaw. est-ce que mën nañ xam rek la moo tax choix wu 14 février bi wala dafa tombé rek. waaw 14 février bi waaw li mu li mu ëmb dafa bari ndax bari na may yi nga xam ne sëñ Béthio may na ko soxna si waaw 14 février la wàcc yaay man maay yow gi waaw bari naa ba ba ci seex gi moo seexaloon waaw jamono yooyu ci 14 février bi la wàcc waaw ba tax mu doon bésu boppam. waaw moo tax moom bés yi saa bu delloosee da ciy sant sëñ Béthio waaw ci euh, tawféex ndimbal ak euh, yii mu ko defal xéewal yii moo tax saa bu bés bi si da ciy sant sëñ Béthio waaw cant gi nag moom waaw ren moom nii mu demee nii waaw mësul ni demee waaw ba tax na xam naa rek lii lancement la waaw ku génne tuuti ci baas bi di nga xam ne sang bi coful bësam bi waaw te ren yii li ci tawféex mooy soxna Adja Saliou suñu fierté moom la def invité d'honneur kon xam nga ne bés bi cofu ko waaw ba tax na ñu ngi koy santaat bu baax ñun ñii mu dimbali ba boole ñu sabab yi waaw ba mel ni dañoo dañoo nekk ci liggéeyam bi nga xam ne moom loxoom bi rek mooñ moo si tege waaye ku xam li xam ne jomm nañu lool waaw di ko ñaanal rek mu yàgg fi te wér waaw kii. beneen di bi rek mu sànni ci kaddu sëñ bi nuyu la. waaw maa ngi leen di fay bu baax tey sant Serigne Béthio ñaan mu gën ñoo dimbali ñaanal soxna Aida Saliou Thioune dëgg dëgg jëmmi sëñ Béthio mu yàgg fi lool te gën a weex maa sant bu baax ci bés bi waaw tey di la 14 février soxna si woote ci sant sëñ Béthio may yi mu ko defaloon comme da woon ak le 14 février ci ko yaay man maay yow jàpp ci yow muy dëgg dëgg jàpp ci man ñun ñii ñëpp mu ne ñu Aida ngi nii jàpp leen ci moom ñun sant waaw li ñu ciy sant sëñ mooy li ñu ci boole. waaw man nga jëwriñ góor gi saw ma teewal fi waa xelkom nekk jëwriñu coalition xelkom waaw depuis démb ba tey ñu nekk ci waajtaay yi ak ci liggéey bi waaw ngir kat ndeysaan da koo yëg dafa yëg sant sangam bi waaw wax dëgg comme rek mu fàggu fruit yu ko mate boisson bu ko mate waaw ndox yu ko mate waaw xeetu doom yeeg naan yeeg yëpp waaw yëpp mate na ko waaw ndax waaw bu um rek waajal nañ ci toog wax 7000 pièces waaw te nee nañu su doyut mu waaw sant nañ bu baax. jaajëfal comme ni ko waxee ah le 14 février date bu mémorable la nga xamante ni Cheikh Béthio si la si soxna Aïda ci la waxoon ci la Cheikh Béthio waxoon ne tamit mooy moom euh, yaay man maa yow ba tey ah dañ koy dañuy ñëw rek xoolaat euh, yeneen taalibe ci biir euh, ba Malick ba tey ah, ñu ngi fi nga xamante ne fii la ñuy defaree bernde ñu ñëw rek wax ak soxna yi comme ko wax ak nañ ah, góor ñi ba tey soxna si nuyu ñu ngi lay fay. bi naka la. lay fay. tey nag ah, da ngeen organisé woon cant yu mag yi nga xamante ne soxna Aida mën nañ ne le 14 février bu mémorable la ci moom. waaw loolu dëgg la date bi moom dëgg fa yàlla mën naa ne tous les cantaakon képp koo xamante ne maanaam mbégub sëñ bëgg day sa mbëgg kon mën naa ne bi kat sa date la rawatina ñun ñi nga xamante ne ñu ñoo am tawféexu ànd ak soxna Aida Saliou Thioune muy dëgg-dëgg jëmmi sëriñ Béthio waaye mu neex nuy lool te it ñu nangu ko moo tax na bés bi ñu dañoo féetal kaw bés yëpp barki sëriñ Touba mu neex ñu lool ñu ñëw ànd ak mbokki taalibe waaye ñu togg ñam yu bari ñam yi saf xorom waaye ak ñam yi saf suukar waaye du ko séddale du ci am xàjj ak seen waaw jubluñ ci leen lu sant ci borom bi waaye it fas fas yéene cee am mbégum soxna Aida Saliou Thioune waaye di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér fas yéene ànd ak moom di liggéeyal sëriñ bi ba faw ci barkeb sëriñ ba ci Thioune kon ñoo ngi lay jaayee fa. لخير نهري بقبل منك يا الله رواك يا رافع دارين مرتباتي بلا انقفال بفضل منك يا الله rawaaka yaa fi wut daara ñi martabaate bilal qifaalin bi fadlin minka yaa Allah rawaaka yaa fi wut daara ñi martabaate bilal qifaalin bi fadlin minka yaa Allah anta al-mu'izzu laa sant sant xilal muy san waaxid bal fii ka yàllaaw ansal musillu la si salali sati alin suwal jinnuwa saytaanu yàllaaw yaa man la wool amru man laa sariika la وفي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل بزال يا مليكي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 نفسي بتيئ منك يا الله أنت سلام لاسي سلام تكن لي من ويا بنفسي بتيئ منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار